te laaj dañuy xuloo fii rek waaye bu ñu bu ne jubal la nag ñu jubal loolu tey ñoo jubal benn yoon man nag j'ai eu la chance man aw ma fi kenn ku may ku may suba ku may suufu ku may xulool au contraire au contraire man ñi ñi fi nekk sax dama leen di jàppale dégg naa sax ku dem ni sama doom léegi daa yor xaalis xaalis réew mi moo yor da nga am daa bëgg a ñëw Touba et puis da nga am di bu ñëwee Touba dana xam mu ngi jox baayam xaalis mu koy saxal saaxe mais moom na seet xelam man sama mak sama dom ñoko yobu ci Macky Sall en 2005 ñoko wutal promotion bi mu ñëwee bi ñu paree léegi bi ñuy def 2012 élection ñu ñoo dem kërëm jox ko 5 millions mu commencé campagne. di Cicelo il l'a dit ouvertement ma maa am ko xamni da daa ñëw këram bi muy def cantam googu mu téléphoné ak nit naa ablay sila da daa yor daa sàcc xaalis si réew mépp léegi daal di ñëw légui nag bayam la jox xaalis mu koy sax saxé mom tay la ko mëna wax. waaye man am na lu ma seq ak moom te moom musuma defal dara musuma may dara te man jox naa ko xaalis jàppale naa ko sama doom jàppale na ko day am wax yoo xam ni kenn waru ko wax